Abdoulaye so dano bidano fo nayu laccanom la assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu maa ngi ñaan ci sama tur mooy yaay muy yaayu rajo bi Gracia FM ajaratu Cheikhal Adja Fatou ci lay waxee nee na sa maam mu ngi lay mu ngi lay nuyu di lay gërëm di lay sant ma yàlla ma ne li ko defal nii lu rëy la ci moom parce Afia FM dafa am baatin boo xam ci biir Afia FM defe naa ñu bëri xamuñ Afia FM baatin ko lan dinaa ci wax tuuti léegi nii bala may bi may ñëw dafa ànd ak Adja Ndeye Doumbia dugaloon ko Madior dugaloon nga ko sànq muy grande femme de développement ci Casamance ñëw na ba jox ma maa ngi ànd ak Bintou Samb say auditrice ñu gën fidèle la ci communauté Mandeng parce que communauté Mandeng seen tur laay waxee tey jii ma ñëw bala may daaneel ci këru diine yi gën mag ci Casamance yàlla def Ibrahima Badois Dramé te ñëpp xam papam muy Souleymane Badois mu wàllu mag mag moo dugg si léegi nii dëkk ak yéen fii ci biir Grand Yoff mais yàlla may boo demee tay bi Barsasou El Hadj Moustapha ci kër gi la bokk boo demee euh, Njama Cheikh Sidia Dramé doomam ci kër gi la bokk boo demee Boulo euh, ci kër gi la bokk man nag may jiitaroo ñoom ñëpp man may seen mag ñu sëriñ yooyu yëpp may seen mag muy sama jiital li tàmbalee rajo bi dafa am baatin bu ci nekk dina def conférence sa ah. dina def conférence sa ah. conférence bu réy la def sax parce que day wax ci l'islam di wax ci sociabilité di wax ni ñuy minorité mais yéen a Afia kenn raw kenn njëkkul la ci est-ce que xam ngeen ne à travers Afia FM lañ sama mbokk yu bëree bëree bëri laa leen xamee parce que jaakaarlaamaa gi man xaw ma Casamance mais à travers ton rajo ñoom ñëpp kenn par kenn moom fi doon lim tey jii moo fi jógee. seen émission émission bi di doom ci man moo tax ñu xamante maa ngi donc Afia yéen a ngi liggéey liggéey ma leen di ñaanal parce que ñoom dañu leen di déglu mais li ma leen di moo gën rëcc su sama xol laa sama xol laa ko tibbee xam nga dañuy wax man bëgg naa ngeen yem ci rajo man dama bëgg Action FM ngeen am télévision mag a mag a mag nga xam ne ñëpp dañu di suivre parce que li ngeen di liggéey dafa doon lu ci biir Sénégal waaw loolu tax nag moom temps yi di leen dem imam maa ngi leen jox seen wàccuwaay kontaan naa loolu seen teewaay parce que sama turandoo yeneen dëkk dootul ñëwati de yonent ba pare naa ñu de yéen ñii yéen nañu yéen yéen ñi suñu xol yéen a koy defar yéen bu ne te ñu gis ñu ne waaye kenn mënu leen fay yan na si loolu sax wax ji mënoon a gën a gudd parce que du ma sax dugg ci baaxu bi parce que baaxu naa gënu ne di xa ñi ñi ñi ma xam ñëpp xam nañ ne bu ma waxoon baaxu bi bu fi jóge tey xam nga Mawlana Cheikh Ibrahima dafa doon lu rëy ci àdduna Mawlana Cheikh Ibrahima Niass dafa doon lu rëy ci Sénégal Mawlana Cheikh Ibrahima Niass mooy juddoo Taïba Niassène génnee àdduna Angleterre jamono jooju jamono jooju ñi nga xam ne ñooy nasaraan si la ñu bëggoon mooy jël waajuram bu góor jël ko yóbbu ko comme esclave loolu la ñu bëggoon waaye diggante moom ak ki nga xamante ni mooy di Seydi Hadji Malick Sy radiyallahu taala anhu ñu nekk ci waxtaan ba ñu yóbbu ko tey tey ba ñu seen waajuram ñu yóbbu ko fa foofu waaye nag xool yàlla def ñoom ñi ko bëggoon jël yóbbu ko Angleterre yóbbu waajuram ndax bu ñu yóbbu waajuram mën na dem rek ba Mawlana Cheikh Ibrahima dina judd Angleterre waaye teewul mission yàlla fa la ko doon yeggalee ndax ma wër àdduna ci turu yàlla muy laa ilaha illa allah àdduna bépp nga si kare macha allah kon Mawlana Cheikh Ibrahima suñu fierté la ñu ngi koy nuyu di ko ziar Cheikh Ayou Cheikh Ayou Faye ñu ngi koy ziar moom ak délégation bi mu àndal soxna Dado Gueye madame ñu ngi lay delloo tëb bu baax a baax Badoa Badoa Dramé maa ngi lay ziar sama sëriñ sama xarit sama kilifa sama xarit bu xol maa ngi lay ziar bu rëy ziar boo xam ni am na tàmbali waaye amul fu mu yegg ndax it ni nga ñu bëggee fonk nga ñu noonu. lu ko raw la la bëggee fonkee la te lépp dara taxu ko dundul ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xam ci xam-xam waxtaanee nga ñu ko sa sit bii nga yor boo sañoon ku nekk ñëw di fa jël sa wërsëg wallaay nag ndax sa xol moo ni toog ñu bu baax a baax di la sant man ak collègue bu ASIAN yëpp waaye day jël lépp nag tekk ci loxo Mamadou Fall bii xam ne jëmm ji doon wax léegi suñu ndey jooju suñu mère Saturé ndayu kii la yaayu Moussa Moussa kii la te mu jiit doon taxaw wallaay asim jëjëfal kon dañuy sant yàlla rek di delloo cant yëpp nag benn gàtt kon euh, bismillah euh, jërëjëf Madior xam naa ni dooma sori dina taxilu tuuti ndax fekk nañu ci cappaandawu jotaay bi waaye ñi nga xamante ne suñu ay kilifa lañu ñu ne sama ginnaaw ci wàllu diine ñu am taxawaay bu am solo ju mucc ayib ci rajo yi di delloo siwaat xel yi di waar nit ñi am na nag li nga xamante ne ñun ñëpp suñu kilifa bi suñu directrice te nagaan sugu ne dafa am lu mu leen waajal loolu nag ab surprise la ko bëgg def ndax lan ndax bëgg ci ñoom kontaan ki seen taxawaay kontaan ci seen liggéey loolu nag incha allah ci kanam xam naa bu lépp yembee rek léegi léegi ñu fas yéene ca ndak mbooloo mi ñu fas yéene wax nag surprise boobu nga xamante ne moom la fas yéene def kon ci jotaay gi jagleel ko kilifa yi suñu religieux yi suñu imaam yi suñu ustaas yi ñëpp mën cee teg seen i gët waaye di jaajëfal itam bu baax a baax. média ya nga xamante ne ñoo ànd ak ñun dañu gunge ci bés bi ñu mën cee lim waa Pikine TV ak waa Badoaya TV ñoom ñëpp sant nañ leen gërëm nañ leen bu baax a baax. yéenante lu baax ku ci nekk la sa biir xol ci yéene gu baax moom nga yéene ki nekk ci sa wàll la nga tàmbalee. ngal sugg di setu sëriñ ji di waa dal sugg naaru darman ko bi di xaritu yàlla ki doy loo rasulillah alayhi salaam yéen a ñëpp jàmm ba ki ci nga xamante ni ki ci gën a ndaw ci rajo Afia waaye nag boo yàggee ay kilifa jataay bi ni mel am da nga kat tey dinaa bind ay teraanga sagal kilifa yooyee kilifa yi ñam tey bu ñëwee conférence religieuse ñi nga xamante ni ñoo féete ci wàllum religion bi mais ñoom lañ koy jagleel jagleel googu nag parce que ñoom ñoo ci yëngu ñoo naan yàlla nee na yonent bi sallallahu alayhi nee na kër di kan tarixa yi nee nañu ci lu baax ngir ñu doxe noonu bu ëllëgee ñun ñëpp ñoom àjjana kon nag ajaratu maam Kumba ndigal gi day jibee ci benn ngaan sugg directrice boo noppee rek ñu daal di jublu nag ci teraanga yooyu nga xamante ni moom la ñuy jox sunu imam yi fi nekk wala diplôme de reconnaissance imam Ka jërëjëf jërëjëf imam jërëjëf mérité nga ko de chance lu mérité la Mansour Mbaye muy soxna El Hadji Mansour Mbaye. Mansour Mbaye suñu xarit. soxna Fatou. ndeysaan soxna Fatou soxna El Hadji Mansour Mbaye. moom mooy ñëw. moom moom moom sama xarit la. Mansour Mbaye. ndeysaan. moom suñu soxna la macha allah. mu jig ñu lool. baax lool. ànd ak El Hadji Mansour ci ngor. ci dignité bëgg ko lool الله الله لا إله إلا الله bi ndax ki ñuy def bi bërëb bi jar na ko. bu sedd ci bés. wallaay. ñeel na ñu. kooku ñeel na ñu. fanaan ñu. nekk ci bëgg bëgg askan bi. nekk ci bëgg bëgg rajo askan ma ñëw ma ñëw. may leen ma yegg li nii. nekk ci bëgg bëgg rajo Afia FM. nekk ci suñuy soxla. ànd ak nit ci chaise ànd ak nit ci bâche ànd ak nit ci organisation bi démb sax moom a jox ma ndogu macha allah kooku Afia bu ñu koy remercier ak na yëpp loolu jar na ko il le mérite moom la ñu daal des fois nit day am dara du loolu chance mukk ci moom waaye mérite la kon maa ngi woo Mamadou Lamine kan mu ñëw jege diplôme de remerciement bu jóge ci rajo Afia. da ngeen a laal sama jàmmi sama jëkkër sama xarit heure yii dem ñu ngi ci conférence ay soxnaam xottil ma mu ma dem conférence foto yaa nga nekk may seen gëwël nag waaye nag tubaab tàlla ñoo ma yàq waa Grand bëgg ñëpp ñëpp la bëgg kadaa borom daal du baax kadaa tooroo dëgg kadaa damaa woor waaye yaa ma tax di ŋàllit bëgg démb bi nuy ngénte sa soxna sa deux de daf may jox ay ñaari junni di jox ay ñaari junni ma mën la téye sama waa di la fekk faj ko xamaloo wuta mbaalu nuyu lii mënul paase mbëggeel lii tubaarkalla am ngeen fu ngeen ko mën a def nag dëkk bi yaatu na te tubaarkalla rajo bi ngeen di liggéey bu fay liggéeyee am nga jom am nga fulla am nga fayda am nga personnalité Adja Penda dama ne la sa papa mi nga toogal léegi lu mu sol lu mu sol ñu grand muy sugu ñu moo ko ñaw ku am personnalité nga bokk fu baax bokk ci yax bu baax àndal ñu baax nangoo liggéey ak jom olof Njaay dañu bëgg boo gis yëgal koy fay tubaab bi ça c'est le fin. Mais PDS c'est le fin non c'est dommage kon doon naa lii nga def jox ko sama tooroo de yal na la yàlla ak sëñ Babacar Sy Faye. yow sama xarit nga. wallaay ah, tey gis naa léegi nii bàjjenu gox mère Sène mi ngi doog a yegg si wallaay muy bàjjenu gox xaar yàlla. أسد خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد الأمين الحمد لله ما يزول محمد الأمين شيخ عيسى عيسى sama kàddu sax mu doon campagne jël na Ablaye waxoon na au nom la présidente du conseil d'administration madame Madiba mais xol bu fees xol bu set moo tax ñuy réaffirmer li nga xam moom la ñuy wax muy conseil d'administration bi di wax ne kontaan nañu dégg nañu dégg nañu si famille bi nga xam ne moom la Afia doon famille bi nga xam ne moom la directrice bi di Penda Sougou liggéey ba yegg si fii moom ñoom kumba yoo xam ne métti woon na trop nag mais soo gisee ñun ñu dellu si nekk si conseil d'administration parce que suñuy jigéen dañoo gis ñu doon ay jàmbaar ñu ne c'est l'occasion de réaffirmer notre soutien que le conseil d'administration ne laisse ne se lassera jamais de soutenir madame la directrice ak tous les agents de Afia FM seen liggéey rafet na ñun kontaan nañu parce que métti woon na trop mais ngeen jàppoo teewoo bàyyi parce que fa af laa ba léegi bay suñu yegsee fii man ma ñëw fekkee lu mel nii man ak Abdoulaye Diagne bi su kaaka suñu xol sedd na te loolu daf ñuy gën a encouragé ñu gën a jàpp si liggéey bi di wax ni si kanam raw li bët encore une fois Penda ñu ngi lay gërëm di la sant di gërëm tous les agents de Afia FM famille bi ngeen doon yàlla ko yàlla sàmm yàlla yàlla aar ñoom Pape ñoom Magor ñoom ñëpp ñu ngi leen di gis seen liggéey si yëngatu bi xëy na jot manqué na def waaye ñu leen di suivre bés bu nekk di lii ngeen def ni yàlla la yàlla fay. benn encore vraiment fier de toi li ngay liggéey nii. sincèrement xaw a ñëwoon ak yàlla daf yéegsi mais si kanam rek jëm ak kanam rek la incha allah jàppal rek dinañ baax loolu laa à tous les agents à toute la maison de Afia FM di leen remercier encore une fois di leen sant si bés bu rëy bi nga xam ne ngeen jëf